ci seen fukkeelu jotaay ak benn tey ñi ngi ñëw ci seen fukkeelu jotaay ak ñaar muy géej gi nga xam ni Cheikh Ahmadul Xadim wu accoon na ci julli woon joxe waxtu suñu borom wi subhanahu wa taala daldi delluwaat ci biir gaal gi waaye xam ngeen ni gaal googu niñ leen ko waxe woon rekk wasixtu bi rabbil arsi sisil juudi wal xafi mahal mustafa wallahu li muhlidin safi jooju sëriñ tubaa waxoon ni jàpp naa ci yàlla waaye itam maa ngi dëgërloo yeneen ci yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye lu jiitu sëñ bi di wàcc gisoon ngeen ni géej gi meloon na ni du si aayoon na lool doon yëngu yëngu bu metti sëñ Tuubaa yëkkati loxoom bu tedd ba ni ayaa baxaru lisaxat bi kaw nii ab daman yax viru zan ba wa kaw nii xadimal Mustafa baxaru yomba ni ko géej gi dalal ab jaamub yàlla nga waaye mayit ab jaamub yàlla la bu koy jaam bu koy jaamu te ab jaam du lor moroomu jaamam damay julli jaamu sunu boroom subhaanahu wa taala liggéeyal Mustafa alayhi salaatu wasalaam waaye bi loolu amee xam ngeen ni géej gi daal nay dal ci Ahmadul Xadim def farata yem daan def nga xam ni moom fu ko julli mas a fekk lu jotaay ba tar tar tar tar tar seexul xaddiim moom la ko suñ borom sant dana ko def kon dafa jëloon yàlla teg ci kanamam jël rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam teg ci kanamam sëriñ bi delluwaat ci gaal googu xam ngeen ni bim ci delloo bi gaal gi déparate di dem sëriñ bi am na benn biteelu parfum bu mu génnee woon doon ko barkeeloo ngir sopp xet gu neex ni ko yenent bi alayhi salaatu wasalaam fonke woon waaye tubaab yi jàpp ni xëy na ay gàllaaj la sëriñ bi yor wala saafara la yor ñu sànniloo ko biteel boobu sëriñ bi daal di koy sànni ngir bañ rekk ñu jàpp ni xëy na moom ay gàllaaj moo koy eh, gindi ci li muy def walla yu mel noonu waaye booba parfum la woon waaye nee na bi mu ko sànnee rek bi muy jub bi muy jub daawme nee na mi ngi gis mbooloo mu bare bare bare bari ñu ngi yor ay parfum ay kees sax doon xaar sëriñ bi ñu ngir ñu siyaare ko jox ko ko mu ni dahaaniya rahimu inda daw mi waaye lahu bi ma ahna aninta saw mi yesara lil muna la daal li biir man xaada li ma xaaba an nga gis ni kon Cheikh Ahmadul Xadim moom léppam suñu borom subhanahu wa daf ko leeral bi sëñ Tuubaa agsee ci port bi ci daw mi ba taxaw fekk na mbooloo mu bari doon ko xaar di ko siyaare ndax dañuy wax ni sëriñ bi jëm Gabon de moom moo nekk ci bato bi war a agsi léegi sëñ Tuubaa nee na sax keroog la dégg turu Gabon mu xam ni kon tubaab yi Gabon lañ ko jëmale ndax li tukki bi di sori sori sëñ Tuubaa mosul wax tubaab yi lu ngeen lu ma joteeg yéen waaye mosu leen waxit fu ngeen ma jëme waaye mosu leen waxit kañ ngeen may delloo si waaye sëñ Tuubaa nee na foofu la déggee turu Gabon bi ñu déparé foofu itam ñu dem ba Gabon biñ ko wàccee Serigne Touba liñ leen ko waxe woon rek barab boo xam ni sëriñ bi wàcc na fa lam fay njëkk a def rek mooy jublu xibla julli ñaari rakka nuyu nuyoo ko suñu borom subhanahu wa taala nuyoo ko njool makka alayhi salaatu wasalaam sangam bu tedd bi nga xam ni moom lay la Serigne Touba Xaadim Rasul itam nekk fa ci ay jotaay yu méttee méttee méttee ci ay tartar yu méttee méttee méttee métti ndax tubaab yi comme génne nañ ko rek lañ doon jëflanteek sëriñ bi dañ ko doon gën a yokk ndax xam ngeen ni tukki bi at yi sëriñ tubaa def yëpp juróom-ñaari at muy juróom-ñetti at yu manqué tuuti at mu ci nekk rekk maanaam natt yi day gën a metti at ma weesu woon noonu la ko sëriñ Touba toggoo foofu waaye xam ngeen ni itam bis bu tedd bii ñu nekk di weeru tedd wi ñu nekk di 18 euh, safar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar wi ñu dëgmal nga xam ne ñu ngi ci weeru safar wi tey jii tombeek juróomeelu fan ci weeru safar gis ngeen ni weer wi nu metti lu ko sëñ bi doon dunde ci ci ci ci tukki bi wante itam at mu nekk dañ mel na nattu yi dañ koy ful mu gën a metti waaye loolu nag jaayante gum jaayante woon ak suñu borom jaayante ko ak njool Makka la wante itam bis bu tedd bi moo tax bi ñu ci agsee muy màggalu Tuubaa gi di fukki fan yaak juróom-ñett weeru safar bi ñu bisee suñ borom da ko xamal ni ko mboolem nattu yi nu mu daan toll nuñ koy fule at mu ne màggal gi itam su dikkee noonu la ñuy fule fay gi noonu lañuy fule yiw yi noonu la ñuy fule ngëneel yi noonu lañuy fule xéewal yi moo tax at mu dikk rekk day day day day dàq ma wees woon noonu la ko sëriñ tuba doon dundee ci gabon bari na ci barab yuñ ko jaarale ndax fuñ ko teg ba jotaay boobu lañ mission bañ fa bañ fay jëflanteeg sëriñ tuba suñu ko xasee def te amunu ca ndam dañ koy jàllale ca beneen beneen barab foofu ci gabon am na barab buñ ko yóbbu woon nga xam ni sëriñ tuba xaadimu rasul ci ahmadou bamba nek na fa dir bu yag bu xawa metti nga xamni serigne modlo Dagana mom mo fa fekkon ku tedd gi Cheikh Ahmadul khadim khadim Rasul waye itam mam Cheikh Anta Cheikh Seydil mukhtar momit fekkon na fa sëriñ touba khadim Rasul ay jamono ci gannaaw bi serigne modlo Dagana deme ci sëriñ bi ba delusi gis nga bisub talata serigne Moussa kanena bisub talata la serigne serigne modlo Dagana tàbbi ci géej gi bañ nan khatmata bañ naan faatu na talaata ci ngoon la fi bàyyi ko woon dox jëm Gabon bi weer wi dellusee déwén ca talaata ja ca ngoon ca lay soog a agsi Gabon agsi ci barab bi Serigne Touba nekk waaye Serigne Modou Lo Dagana bi mu fay agsi mi ngi fekk sëriñ Touba nekk ci lu mel ne benn néegu baraak ñu tëj ko mel ne lu lu lu ñu kaste nga xam ni daal nee na selaw ci àll bu doy waar bu tumuranke Serigne Modou Lo nag bi mu ñëwee mu mel ni suñu borom daf ko sax ngir mu yëkkati xasida lam yabdu mu daal di yëkkati xasida gu tedd googu lam yabdu mislul Mustafa Muhammadi sirran wa jahran fil baraya samadi maddalana lislaam wal kuframa bi nasiati li kulli sama yaqulu fi saahiri wal baati liman ataahu lillahi fi kulli zaman خدمته عن الأيوب أذهبت والاستقامة وصافا وهبت لبان كون المصطفى رئيسا لكل من خطفت رؤوسا قل خدمه فوق كل رقبة من صار خل من حبا محمد مثاله لم ياتي فيما مدى وهبدا لا ياتي ثبت أن ربنا لم يرد مثلا له فمثلا لا يرد له سهادة له براءة يوم على ولد السفاه هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب والإمام والدليل برأه بديه من خير الجمال وصنه خدوس عن خير كمال كون نبي المنتهى محمد خير الورى مختار عند الصمد ba xasida gi jeex noonu waaye bi bi ni tekk mu daal di baamuwaat benn bayit ci biir xasida googu ni huwa nabiyu wa rasulu wal xaliilu wa huwa wal imaamu wa daliilu sëñ Touba daal di jàkkaarloog bunt boobu moo cibir cibir ngi ci biir ci biir barak bi daal di joxoñ bi ni man aqaral baaba Ahmadou Lo buntu bi daal di ubi mu ni bunt bi ubbeekul ma Cheikh Ahmadou Lo Dagana bi buntu bi ne tàll ubbiku eh, sëñ Touba hadi Rasul jakar lo Modou Dagana daal ni ko Mouhamadou Lo bismillah mo daal ni asalaamaaleykum sëñ bi ni ko waaleykum assalam mu dugg ci bir waye nee na bamu fekke mu bi sax taxoon na mu mel ni ku xawoon a ragal a dugg ndax bi muy agsi ci néeg boobu mi ngi fekk ñax mi sax ba mel ni luy xaw a muur sëriñ bi waaye nee na kaalak sëriñ bi rek lay gis ak kanam gi kanamu sëriñ bi ku tedd ki xaadimal musaa kanam gi mi ngi sax karaw ba nga xam ni kaala gi ak karaw gi rek lay gis mu daal ni ko modloo bismillah mu daal di sukk nuyonteeg ku tedd ki waaye nee na nam fekkee sëriñ bi fekk na ko ci ay tumuraanke yu metti fekk na mbub mi serigne touba soloon mbub mu weex la woon waaye mi ngi gàkk daaji serigne touba doon bindé tes ci yéré yi tak ci lool mo xamni dal serigne bi barab bi yag na fi lool serigne bi ni ko def nañ fi dir bu yag yag yag tay jii bi nga ñëwé xasida gi nga jël muy lam yabdu fukki woy la ak ñaar fukki woy yoyu nak ak ñaar def na ci barab bi fukki weer ak ñaar te bayit wu ci nek ci xasida gogu suñ borom nangul nañ ci jaamu yàlla weer kon ku jàng xaside gi am nga jaamu yàlla at guñ la nangul dandi ko ahmadu loo mu ne ko mbakke mu ne ko bi ngay yëkkati xaside lam yëbdu ba agsi ci huwa nabiyu wa rasulu wa xaliilu waxwal xabibu wa imaamu wa dalilu ba di ko baamuwaat ci la sama sang bu tedd ba njol màkk alayhi salaatu wasalaam ni jëlañ ci sama wet ni ma sa taalibu bu tedd boobu sëñ Modou Lo Dagana moom moo agsi doon siyaare si kon nag nga xam ni Serigne Touba Xadim Rasul léppam suñu borom da ko leeral te fum mu toll njool màkk alayhi salaatu wasalaam mi ngi ànd ak moom suñu borom subhaanahu wa mi ngi ànd ak moom ndax déggoon nga sëñ bi waxoon ni rafiixi kitaabullahi wal mustapha nabi wa asaabuhu fil bahri ina adur maa ngi ànd ak téere yàlla bu tedd bi ak yonti bi sallallahu alayhi ak waa ahlul badrin ñooñu saa su ne ñi ngi ànd ak Serigne Touba neewoon na itam fawultu umri li mutxi umri ma ahli badri bilamtiraayi jooyal naa samay mbir ci suñu borom subhanahu wa taala mu jooyal ay mbiram ci man boole mag ahlul badrin nga gis ni kon tukki boobu cheikh ahmadul xadim lam ca war a liggéey lépp ci diggante yàlla ak rasulullahi cheikh ahmadul xadim matal na ko bu baax a baax moo tax yàlla fay ko nag fay gu mag a mag a mag boo xam ni ñépp teg nañ ci seen bët sëriñ tubaa xaadim rasul nekk ci barab boobu di tagg njool màkka di jaamu yàlla la ko tubaab yi di def la muy metti metti la muy diis diis sëñ tubaa gisul loolu jaamu gi muy jaamu yàlla mooy li koy neex tagg gi muy tagg njool makka mooy li ko neex dégg nga mu ni salaatu sitta bi matxi sitta taxti yi batama atisa say at mi de fukki weer la ak ñaar juróom benn weer yi dama koy tagg njool màkka alayhi salaatu wasalaam sama sang bi waaye juróom benn weer yi ci des dama koy ci njool makka alayhi salaatu wasalaam sama sang bi noonu la sëñ tubaa doon lëggéeyal rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dégg nga mu naan yenente bi wa huwa akmalul wara xalxan wa xulxan saara wa mislu xattulan yura walam yura fi siyemi wa huwa moom njool ak akmalul wara moo gën a mat ci yàlla lum bind waaye nag xalxan ci bind bi moo ci gën a mat ñëpp waaye waxul xan ci jukko ji moo ci gën a mat ñëpp saara nee na daal yonent bi sallallahu alayhi wa ko kenn du ci tollook moom lu mislu xattulan yura walam yura fi siimi waaye daal ku mel ne njool màkka mosta feeñ bët mosta tege ci ku mel ne njool màkka te bët dootul tege ci ku mel ne njool màkk ba mukk ndax xalima gi nga xam ni moom la ko borom bi subhaanahu wa taala bindee ba ci bindee njool màkk ba noppi daf ni ko tàlli damm kon nga xam ni Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul amul morom gis ngeen itam tagg yi muy tagg njool makka alayhi salaatu wasalaam gis nga xasiida gu ñuy wax raaya gis nga ca tàmbali ga xal bi lahu fii lita bil jismi takraaru li annahu lil huda wa nuuru jaraaru yalloomu jismi yada bal fil junuusu bi la ilmil wala amalin wa nafsu xaraaru nga xam ni moom fu mu toll woon dafay tagg njool màkka nga xam ni tagg gi dafay wax ni tagg gi mu koy tagg maanaam ay cëram sax yaramam sax day baamu takraaru ci tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa waaye bi muy melal rasulullahi mooy kan dégg nga ci leeraay ba mu ni mi nóor yi kula nóor yi saatihil bi sama nóoru nujoomun wa nóoru samsu wal xamaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ tubaa nee na bépp leer boo gis muy leer nee na yàlla mi ngi ko branché ci leeru njol makka alayhi salaatu wasalaam nee leeru weer wi leeru biddiw yi leer goo gis mu leer rek ci leerug sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ko bind nga gis ni kon euh, sëriñ Touba xaadimal Moustapha sangam boobu di rasulullahi sallallahu alayhi gërëm na sëriñ Touba lool waaye lu sëriñ Touba masa wéet wéet lu mu wéet ci barab yi muy taggee njool makka keroog la gën a mën a jaamu yàlla keroog la gën a mën a tagg njool makka alayhi salaatu wasalaam gis nga mu ni laka shukru wa ridwaanu minni wa sayidun raqibun atidun fil jazirati Mayomba Serigne Touba day wéet na ci Mayomba wéetaay boo xam ni nee na yóbbu nañ ko ci ci barab boo xam ni gisu fa nit gisu fa dara ay montagne ak i garab rek la doon gis waaye nee na amul kenn ku ko fa wéttali ku dul ñaari malaayika yi nga xam ni ñoo féete ci mag mbagam muy raqib ak atib kon nga gis ni Serigne Touba Xaadim Rasul daal amul moroom yàlla nañu ko yàlla doole fayal bu baax. waaye dégg nga ci euh, xasida gi mu ni suhuur yi waxayaami xadal lii sa waahidun bi kaw nii abdallahi wa huwa sayiru nee na di weer yi ak bis yi ñoom ñoo koy wax ni ko nooy sa seere bu ëllëgee bu yàlla fawee siraat gàcc ko ci kaw jax na ma nit ak jinne ak malaayika yépp teew bu boobaa nooy sa seere wax ni sunu borom subhaanahu wa bi kaw nii abdallahi wa huwa sayiru sa jaamu yàlla bi gën a mag ci jaam yi daal mooy Cheikh Ahmadul Xadim Xadim Rasul Cheikh Ahmadou Bamba yaakaari jaam kon nag liggéey bi mi ngi noonu tukki bi mi ngi noonu am na itam foofu ci Gabon am na benn pax moo xam ni dañ koo gasoon ba ñu ko gasee itam ñu taal fa safara ba ba ba mu booy loolu yaatu ca lool bari ca lool kàmb googu itam sëñ Tuubaa lañ ca bëggoon a dugal bañ ko taalee ba kàmb ga àgg jël nañu lu mel ne ay zinc teg ko ci kaw jël lu mel ne ay der teg ci kaw fexe ba awloo sëriñ bi ci ci wet googu ba ci sëñ bi awee nag dafa dal di tàbbi ca biir kàmb ga ba mu ca tàbbee itam ñu gaaw suul ko ñoom tubaab yi wax ni lii la ñu bëggoon tey nag moom sëriñ bi fii lay yem day dal di faatu waaye ci karaamay sëriñ bi bi mu dellusee wax nañ ko sax kàmb googu la ko ci musal mu ni soxna jaaratullaahi Mariyaama Buso mooy ki jàpp loxoom jàpp ci mbaggam génnee ko ci kàmb googu waaye bi ñu ko laajee boroom xam-xam bu mag dafa wax ni loola day mbootum sëriñ bi rek moo soppi ku nekk soxna jaara génnee ko ca barab boobu dégg ngeen tamit Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, sunu sang bu tedd boobu nettali woon na ko nga gis ni kon barab boobu sëriñ bi dajoon na fa lu metti waaye bi waxtu suñu borom yu jotee rek muy tolloog waxtu tisbaar tubaab yi seen bopp dañoo gis Cheikh Ahmadul Xadim daldi génn sa tefesu géej gi ca taatu garab ga di kàbbar di julli beneen bi ci des sëriñ loo Lo na euh, am na bis moom tamit ñu jël benn teen boo xam ni doy na waar lool ci xóotaay lépp luy lore itam yaroon nañ ko ci teen boobu ñu woo sëriñ Tuubaa Xaadimal Mustafaa ni ko boo weddiwul yàlla mi ngay wax ni moom ngay jaamu dañ lay tàbbal ci biir teen bi sëriñ Tuubaa ni leen kon de di ngeen ma ci tàbbal ndax yàlla day fas naa yéene di ko jaamu sama giirug dund waaye njol màkke itam fas naa yéene di ko tagg sama giirug dund nee na ñu ni ko kon dañ lay tàbbal ci biir sëñ Modou Lo Dagana nee na keroog mi ngi teew ñu ngi jël ay buum di ko laxas ci sëriñ bi nee na ci kanamam metti na ko lool waaye boobu amul kàttan gu muy doxe diggante sëriñ bi ak tubaab yi waaye nee na mu taxaw rek am lu ko metti lool nee na ñu laxas buum yooyu daal di jël sëriñ bi tàbbal ko ci biir teen boobu daal di koy tëj nee na bi ñu ko tëjee bi waxtu tisbaar jegesee nee na moom sëñ Modou Lo Dagana mu jël satlak sëriñ bi daal di bëgg yeesal njàpp ngir joxe waxtu suñu borom bi na leen ko sëñ Touba jàngale woon ak nam leen ca doon yare xaadimul Mustafa nee na bi mu bëggee jël satla gi nee na tubaab yi wax ko ni ko soo jëlee satla gi de soo jàppoo fi ñu def sëriñ bi daañu la fi dugal nee na ma daal tegaat satla gi xam ni lay sëñ bi du ñun nee na bi ma tegee sarla gi bay bëgg arrière rek laa dégg loxo bu fottasu nee na bi ma déggee fottasu boobu ma geestu gis Serigne Touba Xaadimul Mustafa suñu yaakaar ci mbaar mi mu taxaw daal ni ma mëdloo jëlal sarla gi nga yeesal sa njàpp waxtu suñu borom yi jot na sëñ mëdloo ne ma daal di jëlaat sarla gi nee na tubaab yi nag talatuñ ma ndax ñoom ñi ngi xool teen bi di xool Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul fan la war a mën a jaar ndax teen bi nañ ko tëjee woon ma nga tëju sëriñ bi itam gis nañ ko ci mbaar mi mu taxaw dara sikkut ci moom yére yu weex tàll la sol leer gi foo toll di jàkkaarloog leeru ci Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul gi ismu jalaal ji ak ismu jamaal ci di xëccoo bu baax a baax sëñ Modou ma jàpp ba ñëw li sëriñ tubaa mu kàbbar jiite neena bi sëñ tubaa jiitee julli googu nee na bi ñu jullee tisbaar ji ba àggal neena ba sëlmal nee sëriñ bi wëlbatiku jàkka mel ni ku jàkkaaroog moom nee na ŋàbb kurusam di def ay ay lawraatam nee na ci diir tuuti rek néegu commandant bi fi mu nekkoon ak fi mbaarum siñ bi nekk daanaka ñoo den nee na néegu commandant bi mel ne lu àgg suuf daanu nee na bi mu daanoo noonu neen sëriñ bi daal di jël kaale gi muuñ daan ni ma mot loo xam nga lu ko defee nee ma ne ko déedéet mu ne ko Cheikh Fall la ma nga ndar mu jël tànku càmmoñ bi rek dóor ko ci néeg bi mu daanu mu ne ko bu bu doon bu ndeyjoor bi nag tukki teg àjjana àdduna sax xaj na ci sëñ Modou Lo nee na keroog la ñu xam ne itam maam Cheikh Ibrahima Fall babil muridin wal muridaat amul moroom waaye ci loolu itam ñu gis ni Serigne Touba Xadim Rasul lam fa daj metti woon na lool ca la waxee woon nag sëñ Modou Lo Dagana ñu ko ñëwal nga waaj dal di dellu ndax li des ci tukki bi moo li des ci liggéey bi moo gën a metti fuuf lii ñu weesu te bu boba kat dana doy war lol te amna lo xamni waro ko fekke ndax man ak ñom rek la ak sunu borom subhanahu wa taala ndax dana metti metti go xamni dana diis dit go xamni doko atan attan bo deme boo ma dal di wool cheikh sidi muhtar maam cheikh anta borom gawan na ma fekk ci fi serigne modlo dal di wàcc ku tedd ki ñaanal ko cheikh ahmadul hadim mu dal di wëlbatiku dal di delusi fi ci bi mu ñëwee itam ba nuyonteeg maam Thierno borom daarul Muxti nuyonteeg Cheikh Sidil Muxtaar maam Thierno ni ko anu sang bu tedd ba mu ne ko ma nga fa mu ngi leen di nuyu mi ngi leen di siyaare bu baax te mi ngi leen di ñaanal ma nga ci jàmm bu baax a baax waaye Cheikh Sidil Muxtaar maam Cheikh Anta sëriñ bi waxoon na ni na ko fekk si foofi ca ca ca Gabon moom it mu daal di waaj daal di dem Gabon fa la fekki sëriñ bi kon nag mbokk yi loolu rek lañ leen doon indil tey ci tukki Serigne Touba bu tedd boobu incha allahu rabbi dinañ leen ko toppal ba ni sëñ bi ñibbisee ba ni mu wootee màggal gi weeru safar wi ñu nekk nag yàlla nañ ci dajeeg tawféexi Serigne tubaab bu baax a baax ndax moom am na ci ngërëmal sunu borom bu baax am na ci ngërëmal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag nañ fexe ñun tamit am ci ngërëmal Cheikh Ahmadou Bamba sant gi mu wax ne nañ ko sant la yàlla nañ ko waajal bu baax a baax incha allah di ngeen ko dégg ci sunu yeneen jotaay asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen